tegginewul ndax yow da nga niru ak kilifa da nga jekk ci kilifa kon jëfal non non man politicien li ngay jëf du jëfu kilifa ndax kilifa du toog di wax li ngay wax maa ngi ñëwaat ci yow ah, ah, ma koy ah, nu ma koy waxee maa ku nekk ni ngay tëjee sa bopp ji yaa ko xam maa ngi ñëwaat ci yow na fi lu ne mu wax ko Macky Sall nga ni tekk ni xarum yar maa ngi ñëwaat su nit sa jinne yi yëngu mais maa ngi Euh, euh, Cheikh euh, honorable député ñu gis ni dossier Adji Sarr Ousmane Sonko tey dañu gis Adji Sarr mi nga xamante ne duggee na ko biir tribunal kon sénégalais yépp di jomm ne nit ku ñu violé peut-être comportement bi mu am tey du moom moom la waroon a am yow en homme et conscience si dossier Ousmane Sonko Adji comme sénégalais yépp nuñ ko gisee parce que yéen yéen a représenté sénégalais fële nga xam ne mooy assemblée nationale. est-ce que yéen tey euh, taxaw ngeen pour wax ne peut-être dossier bi ñëpp ñi nga xam ne déglu nañ ci peut-être benn wala ñaari nit ñoo ñëw à charge contre Ousmane Sonko mooy presque ñi ci des ñëpp ils sont venus à décharge est-ce que yéen tey boo leen taxaw pare ngeen pour xeexal loolu population bi parce que bu ñu gisee population ils sont en faveur que ne euh, dossier boobu Adji Sarr ko ko xool xam ne nirut ak ku ñu violé jërëjëf en tout cas maa ngi gën a waxaat rek ñu ànd ak dal. Mhm. plateau bi ay kilifa dañuy toog di ko seetaan. Mhm. man bi ma nekkee si kaso bi dama daan seetaan émission yi man ak ñi ma nekkal maa ngi leen nuyu passage chambre 147 ak chambre 43. ñu leen nuyu bu baax. bon li may tontu rek sëñ bi si Ousmane Sonko justiciable la mooy yemut a kenn parce que man gënuma man Ousmane sama gënuma que man Mbàkke laa sant sët sëñ Tuubaa la man bi ma fekk sama kër di ma jàpp fukki policier juróom-benn di ñëw di ma jàpp si wante pourtant dama bu ma neexoon ne du ma dem man député laa woon. dindi mu sama mbalaanu kiiraay ba pare ñaareel bi vice président commission de loi la loi yi ñuy wet nii mën naa ne ko vice président bi assemblée nationale mais respecte loi ak yoon ak ay règlement moo tax may leen kaay leen ñu dem bi ma àggee fekk naa ñu def li nga xamante ni mooy samp seen tàppe garde à bi teg na ko si côté pare maanaam li nga xamante ni garde à bi bi mu war a def fekk naa ñu teg ko à côté ba pare mais dama signé dem garde à vue ñu dugal ma foo xamante ni jaaykatu yàmbaay jaaykatu dorog yi fa ma yóbbu ci Sylvain bi prison bi nekk fa la nga xamante ne mooy euh, palaato kon yoon bu xasee taxaw ñëpp ñoo ci war a yem man dëkk bu amul yoon jàpp naa loolu du dëkk man mii di wax a yow liñ ma teg teguñu ko Ousmane Sonko teguñu ko ko moo tax pourtant ñoom ñëpp ñu ngi fi woon te kenn waxu ci parce que bu ma nee la tey mënoo nekk sët Sëñ Tuubaa waxu loolu aay li ma jàpp. nga dem ñu ne la léegi da def flagrant délit nga accepté ñu détourné sa procès yóbbu la instruction tëj la ñaar fukk na juróom-ñett te yow bi mu koy wax ña nga xamante ni ñoom nga nekk loon di ko wax kenn ku fa jaar seet si amu la kon ma man mi waxee ko dund naa injustice boobu ci mbirum yoon mais loolu lu ma ko dund dund dund ku ne xam na ne bi ma bàyyee ba fi may wax ak yow teewul maa ngi war a wuy waat yoon le premier juin mais est-ce que tax na ma ne Sénégal yi Cheikh Abdou Bara Dolly sët Sëriñ Tuubaa bi dañ ko woos yoon kaay ngeen génn pour Sénégal li dee si àll bi ma ko def xam nga lan laa gëm moom bu fekkee dem naa ko yoon condamné ma dinaa respecté yoon parce que moom laa am lu mu bon bon kon tey loolu foofu laay waxee parce que man bi may xeexal ak Ousmane Sonko boobu ñoom gisuma leen sama doom feebar na fi juróom benn yoon opère nañ ko fi gisuma sonk sama yaay faatu na gisuma sonk nangu nañ samay kër ngir sonk te bu leen fàtt ni bi ñuy def commission ad hoc assemblée nationale man ñu bokkoon naa ci biir man Mame Diarra Fam. mooy bu ñu levé immunité parlementaire waaw Mame Diarra Fam. Aïssatou Sabara Moustapha Guirassy mi nga xam ne dafa joxoon hôtelam ak Cheikh Bamba Dièye ñun ñu ñoo doon xeexal Ousmane Sonko Assemblée nationale am na ñu tey gis nga gis nga ñu si côté Ousmane Sonko. photo yéen génne woon ci buntu tribunal bi man maa génnoon photo ya ay montage la woon boobu ak ay dossiers foofu oh, gisuma leen woon mais loolu lépp bu xeexee pare bu ñu demee lu procès am te ma dégg Ousmane dafa bëgg a dem procès man la may man mooy encourage pour mu dem procès condition yi nag. kooku mu revenir mu ñàkk revenir kooku yoon mooy wax wala moom mi nga xamante ne bëgg na dem su bis bu jotee mu taal otom ànd ak benn gàddu korom da nga ji génn ay preuve am loolu wax aw ma leen lu ma si yokk te loolu laa si wax kon ki nga xamante ne dafa dem wuy ji li nga xamante ne mooy aji saar man lu nekk dégg naa ko fii saaka nan ma fi ndey tam ma fi dëmm loolu yëpp wax nan ma ko parce que lan la dama féete ak askan wi parce que man li ma am Sonko joxuma ko Macky Sall joxuma ko Sëñ Tuubaa ma ko jox te du jeex. mais nañu waxante dëgg am nii euh, tey boo nekkee honorable député bokk na ci ñu la taxaw. ndax nekk si xam ne si. nga si si kii élection yu jógee ñëw na ba ci yow. daal di lay taxaw ngeen bokk ci benn oto. man bi euh, kii bi. bi mhm. ma Sonko. mais bi ñu la jàppee tamit defal na la conférence de presse. man bi ma jàppee. Mhm. dafa nekk Ziguinchor def benn live wane ne Cheikh Abdou Bara Dolly kaddu yi mu def rafetlu wuñ ko loolu la njëkk a wax ci live bi mm-hmm. fekk na prison ah. live boobu noonu moom la lool la njëkk a wax ñu defaat benn point de presse boo xamante ni waa leader yëpp a ko wax mu wax ni Cheikh Abdou du ñu ko jàpp du yoon man noonu laay dénoncé li ñu jàpp sëñ Assane Mbacké du yoon sëñ Assane Mbacké sama rakk la ñoo bokk baay rakkam bu mu benn ndey maa ngi moom ñoo bokk benn baay sama jarbaat ki nga xamante ni maanaam jarbaatu sëñ Muudu Baara Dolli ak sëñ Cheikh Baara Dolli suñu jarbaat mi ngi si biir kaso bi ñu téye te ñooñu appel lan bokk kon damaa jafe ni li am solo mooy ñu bañ a indi fi. yow daal comme règlement de compte nga ko jàpp man Ousmane Sonko seet si wala man non non man ma gis nga man euh, soxna si man kilifa mm-hmm. diine la mm-hmm. li may wax damay leer mm-hmm. man dama ne viol li nga xam moom la ma wax yoon lislaam sant ci viol teguma sama ba jàpp naa ne viol amul lan seq ñoom ñaar concerné wu ma man la ma doon xeex mooy Ousmane Sonko violé wut damaa sukkandiku si diine ñaareel bi mooy ay seet na yooyu engagé xam nga ma engagé mooy nit koo xam ne dangaa dëkk cim réew li Serigne Touba def ci réew mii alaaji ma def ko si dana bari maam ñu bari ñoo xam ne defuñu ko fi man Sonko ne fi cinquante ans ak Macky ne fi quarante ans laa yemale li ma dund du soppiku mais nag am réew yoon moo ko war a tënk moo ko war a yor même boo amul loolu neex si yoon nga respecté yoon parce que yoon moo ndax bu ne boo xoolee man mii di wax ak yéen ci article 61 ci constitution bi alinéa 2 wax na lu leer si koo xam da danga nekk député man fi mu toll le premier même bu ma demee man jotuma convocation de mais dama dégg ci presse bi ñu envoyé wane ni sama dossier dañ ko renvoyé ba le premier man la premier soin bu jotee dinaa wax samay avocat maître Bamba Cissé maître Alioune Ndiar maître Abdou Dali Kane Abdou Ndar Ndiaye maître Abdou Dali Kane ak maître jaw dégg nga dinaa leen wax may leen kaay la ñu dem ci yoon ñu àtte ma man maay demal sama bopp. mais est-ce que yoon la jotoo convocation. dinaa dem parce que xamul tax comme xas naa xam ni renvoyé nan ma ni nga programme le premier. bu nu ma joxee convocation dinaa dem buñ ma joxul convocation dinaa dinaa xam ni demal wax askan yëpp ni leen lii ñu may topp defuma ko parce que li ne dama koo wax am na ay way ay watu ay waykatu maar yoo xam ne def na ko ay ay kaset naan Macky Sall saay saay la sàcc la bu tax jàpp na jàpp ñu leen li nga wax ci affaire Ousmane Sonko à 2019 2023 bi nga xamante ni euh, dikk na bi ñuy def euh, élection législative yi dinaa se fait man Ablaye Wade laa àndoon 2017 gagné Touba ak 65000 voix mais ci maire yi. waaw man nekkuma non maire ànduma ak moom. dama wax rek li nga xam askan wee tax may wax ak diggante yàlla bi nga xamante nekk naa député mu ñëw assemblée ma ñëw assemblée. muy défendre peuple may défendre bu moo ne ma yow Cheikh Abdou ni ngay défendre askan wi comme man dama bëgg ñu xaritoo ñu dem ba mbokk feeñ Ousmane Sonko ñoo bokk maam ki jur maamam ak ki jur sama maam ñoo bokk benn baay mais li ma ñor du question kii sama mbokk la ndax yonent bi nee bu fekkee sa mbokk dafa na da nga naan ko dafa tooñ nga koy moom merewuma ko si benn côté parce que li wax ni dal na ma te ñëwul loolu taxul mere ko parce que kuy mere nit koo xamante ni lenn tax damaa jafe ne du nit parce que yàlla bi la ko teg mi ngi fi tëdd jaa 2017 Ablaye Wade la ànd moom 65000 voix ma ànd ak président Pape Diop boobu ñu def coalition 2019 ñëw ma ànd ak Idriss Seck jox ko 129000 voix Touba 2022 ñëw Ablaye ba na ànd ak man ñëw naa coalition Yewwi ñu génn ma ni ma doo dugg Ablaye Wade fat ma Ablaye Wade moo ma jiital. ma ànd ak moom jaay samay terrain cinquante cinq millions yóbbu fukki oto campagne samp benn dënn mu yeewi askan démb si Ousmane Sonko bi mu ñëwee sama kër sama sama oto lan ànd pendant une journée la mu lekk man ak moom sama biir oto ñoo ko lekkandoo xaalis ba nu joxe si campagne bi ak représentant bureau de vote man ak père si ko joxe benn dënn mu yeewi askan démb si waaye dama lay wax tant na pour ay député parce que bu ñëwutoon du teem a gagné ndax cent neuf hmm. kooku yàlla moo ko def sama xarit la xëy na séq nañ politique séq nañ àddina ay ay ay ay ay moroom lan waaye damay bañ ñu ko dugal si yenn erreur si yenn communication yi ndax man miy wax ak yow ànd gi ma ànd ak moom tax na ay nitam bi ma demee lu nekk wax nan ma ko ba ne Cheikh Abdou Badou dafa def procuration jox ko Omarium te du dëgg c'est un yoo xam ne waa Pastef joo ko def dem na ba waa Pastef ñu dëkk Touba saaga loolu lépp am na kon dàpp naa ne nit ki boo fekkente ne da ngeen di ànd ngeen bokk lu ñu mun séddoo ngeen koy rafetal dossier bi il faut mu jeex moo xam nii lay jeex moo xam ne lay jeexee il faut mu jeex léegi nag comme yoon nee na du nga ko àtte le man li ma koy conseil di ko ñaan le 23 bu ñëwee moom dafa wax ni am na ay preuve yoo xam ne war na ne ni complot am na moom moo ko wax mais na indi preuve yoo xam na ni am na bu le 23 jotee ñun ñëpp ñu dem si ci ci ci ci fi nga xam mooy tribunal bi bu wane preuve yooyu ñu bëgg koo jaay doole nag su boobaa la ma sëñ Muntaxa waxoon li ma Seex Abdu Baar doon damaa bëgg fépp foo nekk nga xam ne sëñ Tuubaa nga fa nekkal man yëmuma ak ñeneen ñi dama yor ñaari sëñ Touba jur sama maam ba pare ma nekk maanaam politicien boo xam ne maa jiite Touba chef l'opposition Touba maa ko doon kon bu fekkee sëñ bi nee foo nekk def woote jàmm jàmm laay mën a woote ak dal si ñaari côté yépp mais tey bi ak su si àgg loolu laa wax